mbokki jullit yi ni seetaan dina topp ci seen télévision saalum ci seen jotaayu xadiisu Ramadan euh, ñoo ngi leen di nuyu ci kàddu yu mag yu sell yooyu làmbaayoo jàmm ak yërmandeeg barke ñoo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala muy saare ko ci xeetu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen ndokkeel bu baax a baax ci weer wu sell wu mag wi ñu tàbbi muy weeru koor weer wi nga xam ne sunu borom subhanahu wa moo ko farataal ci ñi gëm yàlla comme nam ko farataalee woon ca ñu jiitu woon te objectif ba doon lu loolu rek ñu jëlee ci ak ragal yàlla kon ñoo ngi ndokkeel mboolem jullit ak fu mu mën a nekk ci teru weer wu sell wi nga xam ne weeru barke la weeru yërmande la weeru gore ci sawara la di nuyu mbooleem koo xam ne yaa ngi ni topp ci waxtu wi dinu bàyyi xelit ci jotaay yi nga xam ne yëpp mu ngi jàll ci seen télévision Saloum lépp aju ci programme koor ngir ànd ak yéen ci laayante biir ànd ak yéen ci fàttaliwante lépp rek di delluwaat ci ndigalul alquranul karim wa zakir fa inna zikra tanfaul muminin waaye di delluwaat it ci e, laay biir gi nga xam ne yenent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ne ad diinu an nasiha yi seen jotaay bi incha allahu taala ngeen fas yéene ñu ci ànd ak yéen euh, saa yooyu waxtu wi jotee rek ngir mu nekk jotaayu zikra comme ni ma ko waxee waaye mu nekk it jotaayu laayante biir ci lépp loo xam ne dinañu apporter la ñuy yóbbu ci objectif bi tax sunu borom santaane koor te mooy ragal yàlla subhanahu wa taala mu mel nag mbokk yi tey lii mooy seen première numéro ci jotaayu xadiisu Ramadan. muy am waxtu wi saa yu ñu tolloo fii ci bésu koor gi kon dina yellu dina jaaduwu lool ñu fàttali wante ne jaamu yàlla gu màgg gi ñu tàbbi dafa am wàccuwaay bu rëy rëy ci diinal islaam euh, ndax xam ngeen ne lislaam dafa am lu ko téye loo xam ne benn boo ca bàyyi rek amatoo loolu ñuy tuddee maanaam ak njulit mu mel ni bii ñu tàbbi da ca bokk waaye moom it mu feddaliku ci façon boo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam jàngal nañu ko ci ay waxam euh, fenn ku googu nag def na ko mu nekk jaamu yàlla bu màgg waaye it lim lay apporteel yow en tant que nit euh, ci yaram wu wér ci xel mu sel waaye lim lay apporteel ci jikko yu gën a kawe loola yépp dafa tax lii nu tàbbi gën a màgg yonent bi alayhi salaatu salaam moo wax ne buniyal islaamu ala xamsin shahaadati an laa ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaa wa itaa zaka wa sawmi ramadan wa hajjil bayt kon woor dafa bokk ci p yi tee lislaam nga xam ne p yooyu benn boo ci bàyyi rek nekkatoo jullit al islaamu juz'un la yatajazza loolu jox ko dayoo waaye sunu borom ci aaya boobu ma tàmbalee wax ne moo ko gàll sunu loos ñun ñu gëm yàlla ñun ñi gëm yàlla subhanahu wa taala moo ko gàll sunu loos kutiba aleykumus siyaamu كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مملي لولو اب جوليت بوكو ديغي موم مي سيني كونترا اك بروموم ورنا غنا نام خلام غنا يكتي اب خولم تي ييغ ييغ مو باي خيل لو سيل لو ماغ لي لو مودون داخ ليم كوي ابورتيل موي لي غنا سيل تي لي جوليت دي ام تي بروموم سبحانه وتعالى تي موي راغال يالا لعلكم تتقون راغال يالا غوغو نك القران الكريم ci leeral gi muy leeral dund nit li tax sunu borom amal ko ba keroog muy wuyu ji boromam war koo jege lagal yàlla googu rek la yàlla di xool ci jaam bi moo tax mbooleem lu yàlla gàll ci loosuw nit na xam ne objectif ba mooy lan mooy ragal borom bi subhaanahu wa loolu nag mbokk yi li koy leeral salawaatullahi wasalaamu alayhi dafa waxoon ci benn xadis ne nit ki bi muy ganee àddina fitre la ñëwee maanaam dafa ñëwee ci njub ci xol bu set ñëw ci xol bu laab fitra googu nag la la la ko war a accompagner ba mu delluwaat ak lu sell loolu ba mën a rendre compte boromam ba mën a jege boromam ndax inna akramakum indallahi atqaakum ba mën a tollu ci daraja yu kowe yooyu recommandation yii suñu borom teg suñu kaw moo lay accompagner di la guider di la orienter di la lekk ba nga mën a delluwaat ak xel mu sell ak xol bu sel loolu nag mbokk yi jullit bi su ko xamee Eh, xam gu wér dina tax mu xam lii muy tàbbi lu mu doon lii muy def lu mu doon su xamee ne lii muy def lii la dayo bii la am ngëneel gii la am dina tax mu gën koo jàpp loola tax jotaay yii ñu di ko amal pour laayante biir gi foofu lay gën a feeñee ndax jullit ak mbokkum jullitam war na saa su ñeen ñuy laayante biir ci lépp loo xam ne dana gën a mën a jur ak bëggante ak soppante seen seen seen diggante te lépp luy njëriñ loo xam ne njëriñu na ca borom ba subhanahu wa taala jullit bi su ko xamee war na ko yéene moroomam kon à travers jotaay yi mbokk yi yaakaar naa lu nu mën a lu nu mën a liggéeyaat la sunu diggante ba ñu objectif bi taxoon dëgg-dëgg nag sunu borom subhanahu wa taala sàkk ñu koor mbokk yi ni ma ko waxee léegi xeetu jaamu yàlla la jaamu yàlla bu màgg a màgg boo xam ne yenent bi alayhi salaatu wasalaam jox nañu benn xadis boo xam ne qudsi la sunu borom wax ne kullu amal ibni aadama lahu illa sawm fa innahu lii wa ana ajzi bi sunu borom subhanahu wa taala moo wax yenent bi alayhi salatu wasalaam bépp jëf boo xam ne doomu aadama mi ngi koy jëf ci diggante mook boromam moo ko moom moom la ñeel donte sax mbokk yi mboolem jëf yi sunu borom a ko moom subhanahu wa taala ndax ab jullit lu muy jëf te defut ko li wajhi llahi taala alkarim loolee amul benn njëriñ ndax wama umiru illa li yabudu yacbudullaha mukhlisina lahu diin waaye sunu borom wax ne illa sawm fa innahu li lool jox koor gii ñuy tàbbi dayo bu réeréeréeré illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bi man maa koy fayal sama bopp man yàlla subhanahu wa taala loolu nekk benn xeetu motivation boo xam ne bu nu seetloo alquran saa su ne recommandation yi muy teg ci jaami yàlla yi saa su ne lum la teg rek teg na ca wet ga ay motivation yu bëree baree baree bëri donte nag sunu borom mooy ki sàkk mooy ki moom su ko neexoon ci coobareem ak kàttanam mu sant la te du la ci dig dara waaye borom bi subhanahu wa lépp lum sant jaamam teg na ca wet ga motivation motivation yooyu nag hadis bi ma jàng bokk na ca mooy illa saw mu fa innawu li loolu day motive borom xol bi waaj selal xolam ngir bëgg man mën a nag ci xeeti leer yooyu nga xam ne day defar ruux fa innahu li wa ana ajsi bi kon loolu mbokk yi ci tàmbali koor jullit bi dina ko soxla ci laaye biir ngir mu gën a sarsewaat xolam gën a nammaat ay yëg-yëgam bam xam ne dundam gii li koy may valeur li koy may mu gànjarewu mooy faw rek mu tege ci bëggi bëggi borom bi subhanahu wa taala te mooy ñu jaamu ko wa ma jinna wal insa illa liyabudun إلا ليعبدون إلا ليوحدون أو كما قال عبد الله بن عباس حبر الأمة المفسر الكبير رولا وخون ني لي سونو بروم واخ فوفو موي بيندو مانيت اك جين لودول ني ويتال ما مان يالا تي توحيد الالوهيه توحيد الربوبيه توحيد الاسماء والصفات لولو نك دو داغي خي رك ام كو ديريت دا فا ام خيتو انترينمون روتين بو خامني نيت كي دا تي جار مو نيك روتين تي موم bam man la apportel daraja joju lola waral tay kor ñew nga wara xey def li ni tuddé al imsak anil akli wa shurbi wa jami' al muftirat da yene fas yene bayyi lek ak naan ci digënté bi ko wara bayyi waye ak lepp luy yak koor nga ko li wati ta'ala al karim nga xamna lo wet wet di nga yegne ne amna kulay wetali te moy borom bi subhanahu wa ta'ala lolou ñaar fukki fan ak juroom ñent wala fanweeri fan dina la apporter xol bu sel xol bu yëg xol bu am li ñuy tuddee taqwa te loolu la borom bi soxla subhanahu wa taala ndax alayhi salaatu wasalaam toog na benn bés ne at waa ahuna ragal yàlla fii lay nekk te boobu ba muy joxañ dënn ba alayhi salaatu wasalaam lam ci jublu mooy xol xol boobu nag mbokk yi koor dafa bokk ci li koy formé koor dafa bokk ci li koy yëkkati ci li koy raxas ci li koy jox dayo bi nga xam ne mooy tax xol mën a def liggéey bi yàlla soxla ci jaamam bi ndax ala inna fil jasadi mudghatan isa salahat salaha al jasadu kullu wa isa fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam loolu mbokk mi yaakaar seen premier numéro ci hadisu ramadan jàpp naa ne loolu mbokk mu ne ci ñun ak fàttali dina ca yell ba mu gën a xamaat lii mu soobu dëgg-dëgg mooy ndax xam gi ak dayo bi ko alquran jox ak dayo bi ko alayhi salaatu wasalaam jox ak ni mu ko daan defee moom alayhi salaatu wasalaam ak ni mu ci daan mel ci mbégte ni ci daan mel ci joxe ni ci daan mel ci jàng alquran ni mu ci daan mel ci jokk mbokk yooyu yëpp doon ay xeeti mbaax mbaax yoo xam ne bu ko nit ki tàmmee mooy ka gën loole képp ku bëgg a gën jàpp naa ne jotaay bu nu mel dina la saf jotaay bu nu melit dina di ko bàyyi xel loolu nag Euh, ci présenté jotaay bi moo wunnu xadiisu ramadan muy amee nag ci seen télévision Saalum saa yu waxtu wi jotee ñu fas yéene jàkkaarloo ak yéen ci mbokkoo jàkkaarloo ak yéen ci soppante waaye jàkkaarloo ak yéen ci laayante biir laayante biir boobu nag moo jur ñuy waxtaanee lépp lu nuy jëriñ ci sunu diine fii ci àddina waaye lépp loo xam ne dina ñu jural njëriñ ëllëg bu ñuy dajeek sunu borom subhanahu wa te lenn du fa jëriñ xol bu yóbbaale ragal yalla yawma laa yanfau maalun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim kon mbok yi e, waxtu sel la waxtu ganjero la ci ñu mëna fessalat suñu ndab ci jaamu yalla subhanahu wa taala ñu mëna fessalat suñu nafa ci def lu bax ci jongante ci def lu bax ci xet yu bax yi nga xamne suñu borom subhanahu wa taala yoolal na ko ci sunu dund gile loolee nag mbokk yi dara jiituwu ci jàmm bi xam relation bi dox digganteem ak boromam d'abord te muy al ibada muy jaamu rek moo dox sa diggante ak sa borom waaye loolu su sellee rek relation yi dox sa diggante ak sa morom it sell bu booba environnement wu addina day mën a mel na ko yenent bi installé woon ca madinatul munawwara te loolu nag fépp fu jullit ne rek loola la war a viser ndax kooka mooy kilifam wama atakum ataakum rasulu faquzu nahakum anhu fantahu kon ay besangi ni ay waxto ngi ni ay jota a ngi nii yoo xam suñ ci ande li wajillaahi taala al-karim lepp lu nu bëgg ci dundu gi te muy ak mbax sel man na ci am ndax ay julit lañu te julit day am kilifa alquran moy sunu kilifa yonente bi alayhi salatu wassalam moy sunu kilifa yonente bi taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati kon lii de xam naa ne mbokk yi eh, lu ne lu ñu leen di présenté la rek eh, ngeen war ci ànd nag incha allahu taala ak seeni mbokk ci télévision Saloum ci ay xeeti gëstukat borom mi eh, ñoo xam ne seen yitte yëpp ci gëstu rek lañ ko teg te li ñuy gëstu yit génnut alquran ak sunna di ko dëgëralee waxi kilifa yu baax yi nga xam ne ñoom it seen wax génnul leeral alquran ak sunna loolu insha allahu taala ci yéene euh, ak programme télévision Saloum euh, ak yeneen yu wuuteeg bii sax waaye bi bokk ci programme yooyu ñu koy tuddee xadisu Ramadan muy am chaque jour ci waxtu wi di ci gunge bépp jullit ak fu mu mën a nekk di bàyyi xel télévision bi ngir lépp rek mën a sell lépp mën a dundoo dëppoo dund gi nga xam ne moom la yàlla bëgg ci ñun lépp it mën a dëppoo ak sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ndax loolu mooy jur ndam. fa yàlla subhanahu wa taala kon mbokk yi liñ koy jeexale rek yenent bi alayhi salaatu salaam daan na wax ne inna aqrabakum ilayya majlisan yowma alqiyamati axaasinukum axlaqan nee na ki may gën a jege place ëllëg tooguwaay bu demee ba yowma alqiyaam nit ñi di toog di dend nee na ki gën a jege place man alayhi salaatu wasalaam mooy ki gën a rafet jikko ci yéen koor a ngi tàmbali na jikko rek lay defar koor a nii tàmbali na xol rek lay raxas di ko yéege di ko yéege di ko yéege ba xol boobu jege boromam subhanahu wa taala ci mbaax te xam ngeen ne inna allaha tayibun laa yaqbalu illa tayiban kon mbokk yi e, ñoo ngi sant sunu borom subhanahu wa taala doon am mbégte lool ànd ak yéen ci waxtu wu sell wi ñu nekk e, ci jotaay bu mag bii nga xam ne ñu ngi ko tuddee hadisu ramadan muy waxtaanu koor di am ci télévision saalum saa yu waxtu wi jote di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu boole ñëpp defal nu dégg ak topp waaye it dëgëralaat sunu bennoo ak sunu mbokkoo mbokkoo googu ak bennoo boobu jur di laayante biir ci alquran ak sunna yàlla mën na ko yàlla nu ko yàlla defal te nangul ñu sunu koor te lépp lu mu nangul mu bindal ñu ko si misaanil xasanaat kon ñu ngi leen di digaat beneen daje insha allahu taala ci beneen jotaayu xadisu ramadan ci waxtu wu mel ni le wa ila dalika al mawid astawdiukum allah wa aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.